dafa bëri lu ñu leen di tooñ di ko jaaree ci diini am na ci ñoo xam ne sax boo nee xale yi dañu dañu leen di considérer comme ñoo xam ne sax duñu jullit ak yeneen ak yeneen ak itam di teg <coughs> ay conditions yoo xam ne bu nekkee condition l'islam itam yu facultatif la ñu ko teg teg ko comme ay obligation euh, ay condition sine qua non te fekk loolu amul ma gis ne su fekkee woon ne am na ñuy leeral nit ñi di leeral surtout ndaw yi pour xale yi ñu bañ leen di fontoon ndax ñooy avenir yi ëllëg bu amoon ñu koy def man daf may wàcc kon nan kenn du ma dégg mais tooñ yooyu itam ñu ko di samay doom samay sët samay jarbaat ñi nga xam ne ñooy avenir u ëllëg ma di ko seetaan itam ci sot la bokk ci misaal ñu ngi ci weeru koor wi dañuy wax ne ku naafiloowul amoo koor ba tax am ñoo xam ne dañuy xëy wooruñu nga ne parce que naafile moo big or ça n'a rien à voir donc ñàkk la benn affaire la koor beneen affaire la <clears throat> koor dañ ko santaane la euh, nekkul loo xam ne obligation la koor obligation la sof ñi nga xam ne dañ leen exemple mais la moom teguñ ko kenn par force waaw te dañ ko jël ñoom def ko benn paquet boo xam ne da nga jël yëpp wala nga bàyyi lépp te du dëgg loolu yaakaar naa ne war nañ ko nelal xale yi xale itam euh, ci euh, seen âge bi lañuy takkee soxna te booba mbëggeel gu tar dafay nekk seen diggante ñuy dend ci weeru koor waa lan moo gën a criminel nit ki tëdd ak soxnaam di ndaw bëgg ndaw si ndaw si bëgg ko mu bëgg jël ndaw si taf ko ci boppam kott la ko olof di wax KOT waaw pour ñu bañ koo jaawale ak beneen bi waaw bu ko defee nag kooku bëgg jël jabaram taf ko ci dënnam loolu war a ànd ci bëccëgu kooram te du am contradiction ñu ne ko déedéet da ngay tànn mbëggeel gi nga bëgg sa jabar ak koor gi la yàlla santaane su fekkee ne loolu am na sax ñu xam ne loolu am na yàllaa ko santaane mais ñun yonent bi mooy suñu exemple xam nga chrétien yi dañu ne Jésus dafa joxe dundam pour soowee humanité ñu tam yonent bi dafa joxe bii privé am pour ñu jàngee ca mu won ñu ci plusieurs hadis ne bu euh, soxnaam euh, maanaam amee menstru maanaam amee baaxu jigéenam walla ñu nekk ci bëccëgu weeru koor te mi ngi bëgg soxnaam num daan def ak moom ci ci jamono yooyu mu ne daan na ak moom profondement mais yonent bi ku amoon dooley téye boppam la ba du franchir le Rubicon mais loolu bi ñu jógee wax ko am na ñoo xam ne sax dañoo dem pour bëgg ñu dégg leen ne ñoo ngi koy bu ñu amee xam-xam konoon ba ñu la déggee yàgg na dëgg la waaye Ahmed bi nga waxee loolu nag wax dëgg yàlla coow li bari na. waaw di tontu ku ne di wax. Hmm. te ñu ne diine bi benn diine la alxuraan benn alxuraan est-ce que yéen a bokk kon fi ngeen jàngee parce que bu lislaam waxee lii yeneen ñu nekk borom xam-xam lañu loolu la ñu wax a jàppee. waaw ñoom ci yoon déedéet ñoom yëguñ ko déedéet kenn waxul ne teguwul ci yoon kenn waxu ko mboolem ñuy wax ñëpp déglu naa leen kenn waxu ci ne teguwul ci yoon. waaye am na ku ñu déglu. ñu dégloo li nga wax xel na ko nangu waaye am na xam ne seq ak sa jabar ci nag baatu seq boobu li ci denc sekki mm-hmm. ni dugg sa jabar la déedéet boo ko defee koor gi day yàqu waaye lu àggul ci kaw lu yàq koor gi loolu rek lañ wax loolu yaatal sekki nag bu yàlla yaatalee nit ñi xatal ñooñu ay nit lañu kenn du ci yonent yàlla Muhammad ci ñoom ñun yonent yàlla Muhammad la ñuy wax bu ñu waxee loolu ñooñu dañuy daanu amatuñ yéen man la ma leen di wax li yàlla yonent bi daan def ak soxnaam te loolu daf ko digle pour nit ki mën ko def ak soxlaam ndax yonent bi mënoon na def black out ci vie privée ne la muy joteeg jabaram yoonu kenn wu ci bu ci kenn wax te kon kenn du ci wax mais lu ma téeméeri addis mi ngi ci si donc li ñuy déglu est-ce que dañuy déglu seytaane yii nga xam ne dañuy weddi li yonent bi wax te yonent bi ko wax de ñoom dañuy wax yonent bi mu ne waaye ñoom waruñu wax waaye ils n'ont pas voix au chapitre décret baa ngi nii décret décret la waaye du décret bi waaye amul wax yonent bi wax décret la. waaw damay confirmer mais dama koy leeral. dimension bi xam ne sénégalais yeggaguñ ca mooy diggante nit ak soxnaam dañ ko élever ci degré julli ak lu ëpp julli il faut pas rek parce que nit ki dana am bànneex bu nekkee ak soxnaam que ñu foog ne bànneex boobu. dafa nekk comme en péché bànneex boobu mooy nga fanaan naafila ba bër set nga foon sa jabar moo ko ëpp tiyaa moom la ëpp lu yàlla di def parce que mbëggeel googu defoo ko ci sa bopp moom defu ko ci moom yàlla ci moom moo ko fa dugal ñu respecté yàlla mu nga xam ne moo jël mbëggeel indi mbëggeel lu am doole la ñi bëgg a far mbëggeel ci kanam contrainte dama ne ñooñu ay njéeréer lañ dañ la war a pomper. dégg nga ustaasu njéeréer yi nga dama la ji nga li ustaas yi dafa am ñaari catégorie benn catégorie de boo xam ne c'est le pôle de l'ignorance lu ñu war a xam euh, am mille information benn wala deux information rek lañ cay am jeex na ci misaal ñoom dañu xam ne banque bi day ubbi de huit heures à midi mais xamuñu ne samedi ak dimanche bokku ca waaye du day ni ustaas dama la déer du amul day ni ustaas ñii duñu ustaas ustaas ça veut dire professeur ce sont pas des professeurs. dañuy fen duñu ustaas duñu professeur dañuy fen pour ne xool ko rek ci professeur université pour nga nekk ko lan ngay daj boo demee université fukk yuy jàngale yoo gis juróom-ñeent yooyu duñ professeur te dañ koy accepté ne ñoom assistant lañ wala euh, lu demee noonu maanaam lu ne da ci yàgg mais xëy rek kaalaw daal ne man la bisimilah rahmaani rahim alhamdulilah rabbil alamin na waaw naa nga loolu daf fii dañ man utuma dara pour sama bopp parce que li ñuy def nii dafay tax ay nit démissionner ci diine ji dañu ne comme diine ji mënul jël en charge seeni préoccupation kon ñoom bokkuñ dañ ñoom bañuñ de waaye dañ leen a gaare ne leen vous êtes exclu man ñooñu laay waxal man waxuma sax ak ñi ngay wax nii benn bi mooy le pôle de l'exploitation na nga xam ne ustaas googu métier la te curieusement ustaas bu yooyu yëpp benn daayira rek lañ benn kepp la du ñaar benn daayira la benn sëriñ lañ am benn dëkk la ñuy gàmmu ji mm-hmm. dégg nga maanaam ñoo ñoom ñu ngi def benn stratégie ko bi sa rajo ñu la ustaas même boobu bu ñu bokkal ak yow sëriñ indi la ustaas ku ubbi eh, eh, jàkk ñu indi la ilimaan ku dee ñu ñëw dëj dëj la di ci laaj xaalis chaque année ñu anniversaire anniversaire ku dund koy xam naa ko waaye anniversaire ko dee ana gato ba ku koy lekk non xam nga déedéet anniversaire bu amul gato kay du anniversaire dégg waa non euh, soxna si li c'est très important man xale yi laa àndal parce que d'abord ñoo gën a sell ñi nga xale bii nga xam ne bi mu nekkee góor wala bi mu nekkee jigéen yàggagul kooku ay bàkkaaram dafa ne war ngaa ñëw sax yow boo nekkoon quatre-vingts ans ñëw taal ko sorox mu ñaanal la parce que lu mu bon yow li nga accumulé en quatre-vingts même bu doon par un gramme un gramme yow li nga yor kenn xamul lu mu jeex du xaaj moom bees bees pëlu la tuuti rek la am ko ñaanal ko wax ko mu la doo xale yi xam ne am nañu une certaine sainteté te itam xale ils sont sincères li ci ëpp ils pas li ñuy wax dëgg ci ñoom moo tax bu ñu leen bëggee loo man day danaa taxaw bañ affaire bi nag ñuy exploiter diine ji pour li ci am dara la ak ñoo xam ne xamuñ dara mais comme benn ñi xam ñoom du ñu génn wax parce que bañ nañu ku leen jéebaane léegi ñoom ñu profiter léegi nekkatul connaissance arrogance la damay ne Aminata wax d'accord mu ci eh, yow Aminata waxul yonent bi wax mais taxaw lu amal audace ak honnêteté intellectuelle taxaw ne li yonent bi wax te Aminata nettali ko d'accord ma ci mais man waxuma ne man nii laa gisee wala naa laa gisee man du ma yokk atti l'islam du ma ko wàññi man li yonent bi wax li li ñu waroon a wax na kenn yow taxaw ne li yonent bi waxu ko defu ko comme yonent bi wax na ko moo ko wax moo ko def amul d' accord na ak d' accord ma. no non xam nga ñoom xam nañ ne dañu xam nga mel ni porte bu expiré waaw ah, xam nga yow moo demoon tey jënd porte-monnaie bu ci kees gi nga xool di date bi xam nga da koy delloo xam nañ ñoom fi nii dañ leen di delloo seen seen loolu ñu daan def jeex na dañ ci daan profiter pour se donner faire de la publicité et pour amasser de l' waaw loolu rek la loolu nag dafa jeex loolu dafay jeex pour intérêt nit ñi parce que ñoom bu ñu toppee ni ñuy defee euh, dans cinquante ans musulmans yi minorité la ñuy doon Sénégal parce que ñu ngi pousse ñu ne am na xale yoo xam ñu ngi dem nekk ay témoins de ndax dañuy wax waaw waaw waaw ci jullit ñi ñu ngi dem nekk ay témoins de Jéhovah ak yeneen. yeneen église euh, yi xew léegi jógee Brésil ak yu kenn xamul ca la ñuy dem pour dix heures bu gaañoo ñëw ñooñu dañ leen a war a duma dóor lañ leen war a def borom sikkim yu soof yooyu naan li yonent bi wax sib naa ko mooy li yonent bi wax ñaawlu naa ko mhm. kooku koox dañ laa war a duma te wallaay am na réew yoo xam bu doon foofu duñ ko wax soxna si dama la jox benn exemple mhm. boo jëlee tey Égypte Égypte am nañu à peu près cent vingt millions d'habitants am nañu un million de religieux au moins yoo xam ne diplômé lii wax Égypte ci diine matul ñetti nit ñaar léeg-léeg ñett ñaar léeg-léeg ñett c'est les mêmes waaye du ko may nga xar sa gémmi rek daal di wax lu la neex ci l'islam l'islam diine la joo xam ni ba mu koy def xale yi ñoo àndoon ak yonent bi ba muy dem itam xale yi la dénk diine ji jël drapeau bi xale bu am 18 ans la ko jox ne ko yéen laa dénk diine ji ñoom nag dañoo bëgg a génne xale yi ci diine ji moo tax ma ne danaa wax ak Dakar Buzz ñu wax xale yi ne leen ñi leen di wax yëpp dañuy kàcc waaw dund leen te tuub am na soxna si benn bés soxna ay di soxna yonent sallallahu alayhi wasallam daf ko ne man de am naa lu ma jaaxal ndax yow yaay gën ji mbindeef te sa xeet wi dañuy moy di balu mu ne ko loolu la yàlla bëgg parce que bu nekkaloon di mooy di balu yàlla daf leen di jéppi jëlee leen fi indi fi ñeneen ñuy mooy di balu. kon yàlla baal na ah yàlla dafa nekk pour loolu. pour bale moom rek moo sañ a bale. te dafa bëgg ñu ñaan ko mbaal mu may ñu ko ndax moom soxlawul dara lu mu am da koy joxe. loolu la mais il faut ñu jàngee ko noonu. yóbbukat safara yi war nga leen a mbuttak waaw. waaw après nañu waxtaan ak xool la na ci am sax waaw ah. il faut ñu jël leen ñoom it ñu wax lan moo tax ñu metti. non non non non non non non on donne pas la parole en criminel ñoom c'est des criminels waruñoo wax dañu leen war a ignorer parce que bu ngeen defee loolu da ngeen di indi doute ci vérité man kenn rek laa may mu wax ki mën a ne lii ma wax yonent bi waxu ko defu ko. mu firnde ko.